asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk téléspectateurs yi bàyyi xel uh, ak mbokk internet yi nekk uh, di ñu suivre ci pikinbiz uh, point com rawatina ñi ñuy topp ci Pikine TV ñu ngi fii ci Magalu Touba édition 2018 pik ak groupe Pikine Biz rawatina waa groupe Pikine TV ñu ngi fii ci jumaay Touba fas yéene ànd ak yéen ci màggal bi dëgtal leen li nga xam ne moo fi bàyyi ko mu ànd ci ak sama naataango Mati Sarr Niang ak équipe Pikine TV bi ak suñu caméraman waaye ñu feggoo seeg suñu naataango bi nga xam ne miin ngeen ko ci télévision Futur Média di Pape Fara ñu ngi mati ñu ngi fii ci jumaay Touba egsi ak jàmm ak waa Pikine TV looy nuyoo euh, mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan. waaw salaamaaleykum salaamaaleykum waa téléspectateur Pikine TV du nuyu itam ñu ngi suivre si Pikine News ak di nu bàyyi xel en direct si Pikine euh, Biz Radio ñu ngi en direct de Touba tey nekk 17e jour weeru safar gi ñu mu nekk euh, suba di gi. ñu nekk si fay bi tey jile ñu ñëw ngir xool euh, saytu ziar yi nga xam ne jot na fee tàmbalee am jëm euh, ci ñi nga xam ne ñooy euh, ñu jóg ñu bàyyee ko fépp fu nekk si gox yi fasanti ko si Sénégal ak si adduna bi ngir ñëw teewee si bisu Serigne Touba bii nii. donc tey jile ñu amaale occasion teew fekk sama benn confrère boo xam ne ñëpp xam nañ ko kenn dootu ko présenté muy Pape ñu ngi nekk si groupe Futur Média plus précisément si TFM Pape Fara ñu ngi lay nuyu. jërëjëf maa ngi lay fay bu baax Matissar. di fay sama jëwriñ sama sëriñ euh, Moussa Thiam nekk ku am Pastef ku am solo ci wàll wi di ci bay wàllam wax dëgg yàlla ñu ngi koy gërëm di nuyu waa Pikine TV parce que boo tuddee Pikine rek sama xol bëgg ndax lépp lu ma am Pikine la ak ginnaaw raay euh, kon ñu ngi sant bu baax a baax euh, di leen fay ci màggal gi nga xam ne nag ren teewe nañ ko màggal gi am solo lool wax dëgg yàlla suñu xolo fii ñu jàkkaarloo fu ne waaye jóge fa nga bàyyi say confort say nal un say double lii ñi climatiseur ñi seen i ventilateur ñi lépp ñëw di tëdd ci suuf kon musaa dama la bëgg a wax rek ne la liggéeyal yàlla rek moo wóor ci àdduna Cheikhul xadim bàyyi na dem Gabon dem fépp yëpp tey mbëkte moomu murit yee ko am te bu njëkk ba dama dem gis kuy dem ci xare da dem ba ñëw am ndam di feet waaye moom ba muy dem ca xare ba la xam ne am na ndam ba pare mu ñëw nag ne bés boobu lépp lu ma am mu feeñ ak mu nëbb ci lii laa ko amee ci ngërëmu yàlla ci ndigalu yonent bi salallaahu alayhi wa yaakaar naa ne ñun murit ak képp ku dul murit màggal Touba moom la ñu am mooy suñu événement national international te nag mu gëntee yéeme mooy lan yéeme gi mooy léegi gars yi xaaratuñ 18 safar safar gi su tàmbalee rek tàmbale nañu bernde tàmbale nañu def lépp muy ndakaar muy fépp kon nag liñ naan réew mi Bàmbaa ko moom ñu réew bambaay ki ko moom loolu lu dëgg la mais suñu ne bambaa ko moom ñëpp a ngi ci biir ñëpp ci bokk ndax bamba ci ñëpp la bokk mbokkoo naag ñi bokk naag ñi la te diine gi lépp benn la kon nag euh, wax dëgg yàlla gis nga màggal gi jigéen ñi nekk fee charia ak sunna lépp fii dafay dund fii nga xam ne moo nekk dëkku Cheikhul Khadim bi sooy dugg ci jumaa ji nga muuru wéetal yàlla rek tax mu def jumaa ju mag ju mel nii kéemtaane ci wàllu wépp wax dëgg yàlla nag te soo gisee ay sëtam ak i doomam ñi ñu jot a jamono kéemaan la ñu jërëjëf euh, Pafara xam naa du ma la teelu yàgg kon jërëjëf euh, ci ni nga nuyoo noonu mbokk téléspectateur yi bàyyi xel Pikine TV am na solo waaye ngay doomu Pikine di doomu banlieue ñëw fii ci Touba di liggéey si jàkkaar daja fekk organe bu bàyyi ko ci biir banlieue bi loolu lan lay def ci yow ak euh, noo ko jàngatee ak loo ciy soññee rawatina ñu dëkk ci banlieue. kontaan bu baax xam nga Pikine TV lu tax ma koy naw di ko foog. man raay bi laa tàmbali woon kenn xaw woon ma fa nekk di fa ñafe di fa ñafe ba yegg si fi nga xam ne yegg si naa fi te ñaan yàlla di ko dépassé bu gën a kawe kon Pikine TV dañ koy ñaanal jéego yi raay bi FM mu def lu ko raw parce que raay bi FM a formé de gens yéen ñi ñëpp jaar ngeen fa kon tey ñu gisee Pikine TV daa taxaw kon képp kuy doomu Pikine war na cee jàpp mais di leen ñaax ci wàllu professionnalisme di leen ñaax foo munti nekk nga bañ a xeeb sa bopp amul organe bu ndaw amul journage bu ndaw nga xeeb sa bopp rek moo am nga jéem a yow tuutal sa bopp ne man damaa ndaw dama fay nekk raay bi fi fu ne laa dem dugg fu ne laa dem fa laa njëkk a duggee avion daal di dem te suñu doole tollu woon noonu mais damaa gëmoon sama bopp lu waaye am rek journaliste war ko mën a def man gëm naa dama koy def yaakaar naa loolu ubbil mooy buntu yu bëree bëri te loolu laa leen di ñaax di wax tamit pikin yëpp nañ ñëw jàpp ci bu baax a baax xew-xew diine yu mel nii tamit da ngeen ciy farlu taxaw ci ndax ñaanu sëñ Tuubaa ngeen liggéeyal ko mu kontaan rek loolu mën na yóbbu fu kawe seen di gërëm ñëpp di sant ñëpp bu baax a baax sëñ Moussa. kon jërëjëf euh, Pape Fara ñi nga xanaa dañ ko téye dañ koy bàyyi mu dem euh, Mati dégg nga li Pape Fara wax mu mel ni loolu xool sedd na ci wane ni liggéey bu ndaw moom euh, organe bu ndaw amul li am mooy ñàkk gëm sa bopp ak ñàkk xam li nga yor ak professionnalisme moom mu doonoon suñu mag doonoon suñu kilifa jiite woon ñu ci liggéey bi fële ci Raay bi FM rawatina dégg nga li wax ci Pikine TV kon mel na ni Pikine TV dafa dikk fas yéene liggéey liggéey bu am solo. ndax màggalu Touba ni ko sama naataango waxee Serigne Touba ba muy dem ci tukkeem bi di yalnu na tom bi ca la xam ni moom am na ndam bis boobu bii la doon màggal waaye màggalul bisum ñibbeem bi moo tax Serigne Moussa Ka képp ku màggal bisum tukkeem ba jihaat nga aj nga umra am nga yool ba sëñ Saliou ñëw ni képp ku ci feeñ feeñ ba faw ku ci raw raw ba faaw kon mati loolu tax Pikine TV dikk fas yéene wane ci boppam fës ci ndax mën a bokk ci ñiy raw nekk ca kaw kon euh, looy duggee ak euh, noo déggee li Pafar waaw xanaa di ko rafetlu bu baax a baax ndax euh, wax dëgg neex yàlla papara ñi nga gàcce nga laama jërëjëf itam euh, si conseil yi nga xam ne jëm wax na ko jëmale ko si Pikine TV ndax wax na dëgg organe de presse bu ndawul amul te itam Pikine TV ñi fi nekk ñëpp kenn ci ku ndaw ndax yow ku la xamul itam dégg na la sa tur macha allah law na bi itam ràññee nan la ci itam sunu technicien bi Pape Mbaye itam wax dëgg neex yàlla professionnalisme 100 pour cent Pape Ali Cissé sama collègue de travail boobu noonu waxaale ma ko sama bopp man moom maa euh, itam euh, daal baax na état des lieux bi su ma ko defee ndax euh, boo gëstoo sama kanam nii boo gisee nit ñi di xam ne te lii des moo ëpp ndax am na ñu bëri ñoo xam ne comme ginnaaw màggal gi suba la ñu bëri amaana dañuy gontu ñëw waaye dëgg rek a neex yàlla bamba ku xam ku xool lii nii xam ne boo xoolee daaw xool ren xam ne bamba at bu nekk yàlla du koy gën di fay ndax euh, kon la mu demee woon Gabon nilul ndax ñu bari ba nuy dund lan leen di jox ay ordre national de mérite wala ñu leen di décorer mu yem foofu na mu nekk diplôme bu di itam waaye Bamba yàlla dafa def ni at bu nekk day gën di sax si xol yi day gën di fees si xol yi ndax boo gisee rang bi itam nga gis ay ndaw rek a ci ne tey itam wax dëgg ne yàlla dañuy faral di naan ku ma wax sa ndaw yi tey ma la say mag ëllëg te boo xoolee rang fiil bi Moussa da ngay xam ni carrément Bamba ndaw ndaw yi ñoo ko gën a bëgg dafa mel ni mag ñi ndax mag ñi sax xam naa ko waaye ñi nga xam danoo judd ginnaaw Bamba itam bëgg nañ Bamba lool wax dëgg neex yàlla min nañ ko soo ñëwee su côté xale jigéen yi itam gis nga ku fi ñëw teggin nga fi indaale yiw sell ak mandute gi nga xam ni euh, boo ñëwee da xam ni carrément fii julli dëgg moo fii daw sa xel dana day faral sax dem si màkka ndax gis nga góor ñi jigéen ñi ni leen di séparé nii ku fi ñëw ànd fee muur gu sell ànd fee sa xet gu neex fas yéene ñëw jàkkaarloog Bamba dis ko sa soxla ngir mu fajal la ko donc gàcce ngaalaama Bamba jërëjëf gàcce ngalaama Bamba mu mel ni duñu dañuy ànd ak yéen dugg ci biir jumaa ji fas yéene leen euh, nemmeekul ba xam euh, dëgtal leen li nga xam ne moo nekk ci biir jumaa ji barabu ziyaar mbokk yi fi ñëw ak kenn ku ci nekk danañ taataan mbokki pèlerin yi nga xamni ni dañoo màggal si ñoom ñëpp dañu leen dikk laaj ndax ni ko nata nga waxe rek di soxna Mati muy Serigne Touba la yàlla barkeel léppam ba tax magal gi fu nek la nit di baye ko ndax wax nako barakali fil harakati was sukun rabbil ladhi qad qad li kun fayakun kon mu mel ni moom euh, soo xoolee mbooloo mi ni nit ñi takkoo ni ñuy dikkee ci ngay xamee ni lam ni woon zimaamul wara asri la dallaahi fi yaddi wa maa rumtuhu min malikin xaada bin an yi nosu mbindeef yëpp mi ngi ci loxol Serigne Touba suñ borom teg na ko ci loxoom ndax laata muy yanu yan bi di dem di tukki ci Daaru Xuddoos ci la ko suñ borom euh, wane ahlu badrin tey ca la amul yéene bokk ci mbooloo moom toggoo liggéey bi kon garaat bu mu doon am garaat bu nitu yàlla di am Serigne Touba amoon na ko laata muy dem waaye lan moo taxoon mu wàcc ci loolu lépp dëgmal liggéey bi di yanu ko ngir lan lam ni woon yaa maalikal mulki yaa man jallaan xawadil irham jamia al wara yaa haadiyan radaa mu mel ni texe mbindéef yi ak xettali mbindéef yi moo taxoon mu toggoo ko kon loolu yi moom la ko suñu borom fayee màggal gu rëy gii kon dañuy ànd ak euh, suñu cameraman ak waa Pikine TV ñu dugg ci biir jumaa ji dëgtal leen li nga xam ne mooy barabu ziyaar yi dëkkal leen biir jumaa ji fi liggéey bi toll ak lépp ànd ko yéen dara du leen umb ci màggal gi ak équipe bu Pikine TV jaa jëf